action bi commencé si biir géew bi jeexe si diggante saaku yi te defe naa ni arbitre bu fekkee ni jege nañu xam na ni action bi dafa continuer dafa mbëru def action la jéggiwuñu beneen bi mooy dama ko daan jël boo xamante ni dafa leer naññ Sénégal yëpp teg seen bët ñu a oote waat mu am carte avertissement ma jàppaat ko mu dawaat génn saaku yi ñëpp gis ko ñu war ko jox avertissement cinq cinq avertissement laa ji jeex arbitre sa gàtt ba ni temps bi jeexee man nag maa bëggul victoire par ay point dama bëgg ñu valider sama victoire bi nga xamante ne dama ko dànn parce que tey si archive yi dañuy bind ne gagné na ko par ay avertissement non dama bëgg buñ fa def loolu dañ def que daan na ko si bëre tout court moo tax ma def sama recours réclamer sama victoire. kon kon recours bi déposé nga ko ba pare. déposé naa ko depuis démb. waaw. waaw kon euh, mbokk internet yi euh, yéen ko déggandoo. Euh, mhm. donc c' est confirmé moom Ndeye Mbirigué def na recours CNG donc après dinañ dem laajte kilifa yu fa nekk recours boobu noonu fan la toll léegi nag ñu dellu si waat ci yow Bombardier keroog aussi ñu gis ni que indi teg. Mhm. ak tey. Mhm. loolu ñu gëj ñu gëj ko gis daal ci yow. parce bu ñu nee yëpp boo seetee yow yaa daan sa bopp soit da ngay glissé. Mhm. ci anam yu mel noonu euh, loolu stratégie boobu noonu. Mhm. kan moo la ko xelal. waaw nit nit dangay ngay da ngay màgg nag si benn affaire dangay màgg si benn affaire aussi conseils yi aussi da koy déglu préparation combat bi loolu lañ ma sant dañ ma ni yaa ko daanoon benn moom nee na moo gën a nekk xale moom moo jël si revanche. nee na màgget nga nee na moo la doole fu mu la fu mu la jàpp daan la donc stratégie bi ñu préparé combat bi mooy physique condition bu doy am karjo bu baax euh, daas say loxo bu baax aussi ba nga xamante ni fu mu fu mu yëngu day jël ko contact ba nga xamante ni boo bëri woon deux heures temps doo sonn ba pare ñoo def tekk dal moo tax làmb ji stratégie lañ ko bëree parce que dama ko noonu dama la xam da da dama la xam bi ma ko bi ma ko wax nag xamu ko ma ne kon après combat am naa la ko wax boo xoolee làmb ji lépp bari nañ ko ba ni mu jeexee euh, lépp contre clé la clé contre clé ku nekk dafa am lu avant loo avantage sa morom ak loo xamante ni bu la fa sa morom yeggee du sa avantage loolu nag foog ñu toj ko dëgg-dëgg si biir pour nga mën ko xam. clé yi mu doon bëgg a dugal yow lu mu def nga teggi mhm. mooy sànq tudd naa ko ci euh, ba mu lay jéem teg chaise ak mhm. am na beneen tamit mu lay jéem yëkkati mhm. beneen mu lay jéem euh, li may décortiquer mooy xam nga làmb mbër bu nekk dafa am lu mu fort ak lu mu ak ak lu mu mbër bu nekk dafa am côté bu muy jàppe mu nekk avantage boo seetloo ñun ñaan ñi bëri nañ ba ni combat bi jeexee kenn la si sa main gauche jàppul waaw ku si nekk sa main droite mooy jàpp xamul tax pied gauche lay jiital may jiital képp ku si jàpp sa morom si main si sa main jàpp boo defee pivot côté bi mu mën côté bi mu foorewul foofu nga koy jàppee moo tax moom main droite am lay jàppe man toujours sama main droite lay jàppe kenn la si main gauche am jàppul parce que kenn nanguwul sa morom jàpp fa. Euh, action boobu nga wax noonu moom góos lay teg may teg góos ku si nekk góos mooy avantage bi ñu jàppantee mooy daf may caxabal dama dama def écart bu ndaw tànkam dugg si diggante bi xam nga ngemb dafa am dafa am dafa am face am latéral mooy côté yi donc bi mu bi mu bi mu bi mu defee caxabal dama écarté mu gën a dugg bi mu duggee sama may góos dama koo jàpp si latéral bi. ngemb li nga xam da nga koy taf bi ma ko tafee ca xabal bi dañ muy dugalaat tànkam ma kal ko ak sama zone léegi def pivot pivot bi li tax sax mu sori dama ko dama dama dama def pivo ak doole pour man kàttan gi ak poids ba mu nga fa moo tax ma pivo ak doole mu mu mu dem lu ëpp parce que pivot bi dafa am doole dama defoon diise na noonu ak doole jooju mu nga fa ma def pivot moo tax mu sax jéggi xaw a jege saako yi. <laughs> non parce que li ma xalaatoon ni tey bu may def pivot loolu laa fay fekk fekk ma ko fa après nag bi mu jégee bàyyiwuma dama def action continue après dama ko taf plaqué pied droite bi sukkal bi ko mu tëdd